Mm. sur ce chapitre là ah. concernant le conseil constitutionnel ah. xam nga am na des hommes politiques yu ne mm. l'objectif de la manœuvre mm-hmm. c'est de mettre la pression sur les membres du conseil constitutionnel ba ñu démissionner mm-hmm. sauf que bu ñu démissionner on met en place on homme de nouveaux membres loolu mënul motiver un report sauf non, si on a réellement envie de, de reporter bu ñu démissionner bu ñu démissionner ça va créer une situation juridique bu compliquée bu graaw. waaw man maa la ko wax. c'est-à-dire je t'explique je t'explique. mënul nekk. léegi problème bi mooy un motif de report. non xaaral xaaral rek xaaral defal ndànk. yàlla nañ bañ a démissionné est-ce que dégg nga waxal bi 93 mhm. Kéba Mbaye kese moo démissionné woon ñu remplacé ko. fii trois membres bu ñu démissionné la composition devient irrégulière ñett yàlla nañ bañ a démissionné. ci gàtt parce que waxuma la sax dem mais bu ñu démissionnoon imagine toi kaw bi ngay créer et puis attends est-ce que tu te rends que c'est le parlement c'est-à-dire aujourd'hui dépassé na PDS parce que groupe parlementaire PDS ñoom ñoo ñoom ñoo déposé demande de commission d'enquête bi mais assemblée avec les l'aide ndimbalu APR ñoo ko voté donc léegi seen commission d'enquête boo xam ni assemblée nationale la concerné c'est-à-dire le jëm ci pouvoir judiciaire soxna si li crise institutionnelle bu grave la léegi nag. waaw mais léegi nag jusqu'où mhm, mhm. cette commission parlementaire. peut aller. peut aller très question. lu ne nag dégg naa ko ci. ñii ne am nañ ay audio ñii ne am nañ ay éléments ñu ne am nañ wax ji dafa bari en tout cas ci li lay gars yi di wax ci coulisses yi. disent que bon am na ay éléments yu wóor yu gars yi am. wane ni vraiment guerre am na tu comprends loolu en tout cas daal Sénégal daal li ma la mën a xamal pour résumer pour gàttal euh, Sénégal méritéwul li magistrature Sénégal méritéwul li par république du Sénégal méritéwul li yaa xeeti mu laa nañu nañ dem ci élection yi